madam la ministre ni nañ la bismillah madame la ministre ni nañ la ñëw nga fi nga war a ak bi nga waree ñëw ndax tey ji jigéen ñi dem nañu ba commencé xaddi ñun ñemetuñu sax wax ak jigéen ñi si affaire financement parce que département Podor fii dañuy wax waxaat fouraas ñun tamit suñuy nawle la ñu nekkal fii tey ji bu la yàlla indee fii nga ñëw si ni nga ñëwee te nar a wax nit ñi mu ngi ni ñun dañuy sant yàlla financement 105 millions 750 000 francs yi nga xamné mo dugg ci région Saint-Louis daf ci am lo xamné dafa dem ci mutuelle yi mutuelle Adama Aïssa amna 10 millions mutuelle Propas amna 15 millions mhm. li ci dess ay subvention la ci bon yu mel ni la ne yi nga xamné pandémie bi daf leen laal ñom lañ kay jox buñ leen jox tamit dinañ ci bindu turu présidente Nam naam turu présidente bi mo ci ne et présidente bi moomu ko. am comité de suivi yoo xam après dinañ ñëw ñu xool utilisation bi naka lañ koy defee mais li ci ëpp solo mooy lii tàmbali la ndax buñ fi jógee tey ba ngeen dem ci gouverneur incha mu jox leen seen bon ku jógee ci gouverneur bu demee poste dina jot ay kopparam loolu benn la mais ñaar li ëpp solo mooy koppar bii tey mais. nga mën a lëkkaloo ak ministère bi mu gën la di la mën a gunge ba boo toll woon benn wala ñaar déwén bu ñuy ñëw ngeen nañu yegg nañ juróom loolu la ñuy recherche te loolu pour mu am bu ñu defee comité de suivi bi di lëkkaloo di xool liggéey bi fu mu toll nu mu demee lu manqué saa yu amee lu manqué lu ngeen tële ñun dañuy jël dolli kon bal bi léegi seen camp la def dañ naan ministre bi dafa ñëw si heure ndax wax dëgg yàlla depuis 2001. ñoo ngi xaar boobu ba léegi fu nee woote nañ fa fu nee bind nañ fa fu nee dugg nañ fa di wut ku ñu appuyer waaye boobu ba léegi yàlla sottalu ko tey la ko yàlla sottal mutuelle Adama Aïssa day mutuelle boo xam ne jigéenu département de Podor ñoo ko moom ñoo boole seen ay doole groupement yi ñoom ñoo boole seen ay doole ñu def seen ay dépôt ñu commencé def seen financement depuis 2001 ba léegi mutuelle Adama Aïssa mi ngi am un encours de crédit boo gisee lu mu eggee lu mu leble y a un encours de crédit de 15 millions te 15 millions yooyu yëpp daf financer sur fonds propres D'accord, la demande elle est là les membres yi bare nañu te ku nekk soxla na financement mais dañu un problème pour financer ñi donc la demande est plus forte que l'offre Si bu ñu ñëwee ba fii dégg ne loxo fim fu yegsiwul ci mutuelle Adama Aïssa loolu lu ñuy a corriger la directeur bi dina fi xol naka la leen di gën a accompagner ci ngeen gën a renforcer soit euh, équipement bi la soit logistique bi wax nañ ñu moyen de déplacement yooyu yëpp dina instruire directeur ou fond bi mu ñëw fi comme ça mën a xool naka la leen di accompagner ba initiative bi ngeen am te mu nekk à l'échelle du département ñu gën ko yaatal point de service yi gën a bëri ba nga xam ne euh, objectif inclusion économique et sociale boobu ñu am dina mën nek may profito également di yëgal wa PROPAS que seen acre signé nañ ko moy suñu accord cadre de refinancement bobu nga xamné am nañ ko pour ngeen mën bénéficier wu ci fonds wu placé privé donc directeur de la microfinance mi ngi fi su paré dinañu xol naka ngeen di def pour que projet yi ak financement bu consistant bobu ñu indi won pour la région de Saint-Louis ngeen xol nu ngeen ci mën euh, bénéficier woo may invité aussi yenen mutuelle yi nga xamné signé guñu accord cadre pour ñu mën ko signé pour bénéficier aussi si fonds wu placé privé